Imam Makhtar Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba Moreau. Imam Makhtar Ndiaye nga nekk imam ca mosquée bu Liberté 6 chargé euh, de communication de l'association des imams et oulémas du Sénégal membre également de la société civile ma lay laaj en tant que euh, religieux naka nga analyser tension politique bi nga xam ni actuellement ñu ngi koy dund fii ci Sénégal. waaw tension politique bi moom wax dëgg yàlla ku ku nekk ni mu nekk situation bu bu bu day jax day violence partout waxante ay kàddu yu ñaaw ay appel à la résistance à l'insurrection donc muy situation boo xam ne wax dëgg yàlla jaaxal na ñëpp situation boo xam ne mën nañu wax ne Sénégal mosu fa toll ah euh, ba tax na kon tey li ñuy ñaax acteur politique yi mooy dal mooy jàmm fexe waxtaan toog mën a génne situation bi loolu rek moo ñu ci mën a génne toog waxtaan rek. toog waxtaan kese euh, naka nga apprécier euh, intervention wu xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké euh, bi nga xamante ni mi ngi def ay jéego pour rek dënn yi daal di wàccaat naka nga gisee intervention bi muy def la xalif général des mourides. waaw muy intervention boo xam ne wax dëgg yàlla dama koy rafetlu dañ koy rafetlu parce que dafa joué rôle am dafa joué nekk régulateur nekk kuy defar. boo mhm. xam ne bu dëkk bi nekk ci tension dëgg yàlla mu wax. te euh, ñoom ay kilifa la yoo xam ne bu ñu waxee Sénégal yëpp déglu leen kon taxawaay bi mu taxaw wax dëgg yàlla taxawaay la w ñuy rafetlu te mooy appeler tey les acteurs politiques au calme ci dal à la retenue au sens de responsabilité waaye surtout nag mu woo leen ci ñu fexe privilégier li nga xam ne mooy dialogue bi waxtaan bi ma doon wax léegi. ak concertation parce que ci waxtaan ak ci concertation ci la ñu mën a amee jàmm rawat na ci langue politique bi tey loolu kese mënu ci mën a génn te kon appel bi mu euh, lancé je crois que tey. acteurs politiques yi wax dëgg yàlla dégg nañ ko te buñ ko déggee aussi am naa yaakaar itam daan ko jëfee. Hmm. ku wax Sénégal xam ni am na ay cités religieuses guide religieux yi am lu ñu fay représenté euh, tey jii ñoom lan moo war nekk seen rôle euh, pour euh, jàmm amaat si réew mi. waaw religieux moom rôle moom dafa war a nekk toujours un régulateur. mais koo xam dalal bu tension amee mu mën a wax. bu situation yu difficile amee parce que Sénégal tam réewu diine la nit ñi jox nañu cër wet nañu ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ba tax na ko suñu cër dafa war nekk toujours nous mettre à l'écart des jeux politiques ñu taxaw taxaw comme ay arbitre bu situation amee nu mën a wax ni ñi dégg mën a appeler les acteurs politiques moo xam opposition la moo xam majorité pour nu mën a toog ci waxtaan loolu moo mot a nekk suñu cër te ci taxawaay boobu ci la mot taxaw tamit kon yow rafetlu nga jéego yi nga xamante ni maire de la ville de Dakar def na ko di Barthélémy Diaz euh, ci initiative wu dialogue bi euh, donc yow yaa ngi kay rafetlu te moonte coow li bari na de opposition bi yëpp fas yéene wu dem wuy ji njiitu réewu Sénégal. taxawaayu maire de Dakar taxawaay la bu ñu rafetlu parce que jàmm moo gën ay te képp ku woote jàmm képp ku woote dialogue kooku bëgg nga jàmm. kon nag bu demee wuy ji ñun ak dañuy koy rafetlu bu baax ñoom aussi dañ dem fexe wuy ji wuy ji dialogue parce que Sénégal il faut le dire pays de dialogue la ba doon ba doon koy wax. Mm-hmm. Sénégal il fait pays de dialogue. pays la boo xam ni boo xoolee depuis les indépendances ba tey ak i démocratie yi ñu am yépp ñoo ngi ko amee ci dialogue ci toog pencoo waxtaan parce que wax naa ne sànq confrontation ak violence mënul dara mënul régler dara te tey situation de tension bi ñu nekk situation de terreur bi ñu nekk tey nekk na situation boo xam la boo xam ne tey mën ñu jëmale fenn bi mooy ñu toog waxtaan. fexe tey eh, eh, eh, loxo bi nga xam ne tey président de la république centre na ko ñëpp. mu leen wuy ci ci loxo boobu tam mooy dem dialoguer autour d'une table. kon tey jii yow euh, en tant que membre société civile est-ce que société civile bi pare na pour dem toog ci tableau euh, dialogue boobu la. waaw xam nga damay mhm. leeral ni société civile bi ñun COSCE la ñu bokk ñun collectif de la société civile pour les élections. Mhm. ñun moom toujours suñu posture mooy ay régulateur la ñu. on est là pour sur le processus électoral. Euh, pour pour pour appeler les autour d'une table te loolu yàgg nañ ko kaas d'ailleurs sunu sunu point de presse bu mujj bi sax dañu euh, dañu rafetlu dialogue bi nga xam ne président de la République daf ko initié dañu ko rafetlu ci suñu point de presse bi donc dialogue boobu ñun ci lañu taxaw te ci lañuy wootam acteur politique yëpp ñu ñëw wuy si donc am na nag société bi benn euh, France boo xam ne ñoom. Mhm. ci F24 la ñu bokk boobu c'est tout à fait différent. yéen bokkoo leen si boobu Imam Moukhtar. ñun bokkunu ci boobu bokkunu ci F24. lu tax bokkoo leen si. ñun nous sommes des des républicains. oui dañu gëm république dañu gëm état nous sommes des patriotes. oui te sunu sunu posture mooy réew mi na am dal am apaisement. Hmm. parce que tamit il faut le. mais pour mu am dal am apaisement imam tamit. situation politique bu fekkee apaisé wul. foofu hmm. kenn mënu ko def dara. élection mënul am dara mënul am donc il faut nous créer les les les climats un climat de paix. un climat de stabilité. mais mais normalement da ngeen si war a bokk imam parce que ñoom ñu ngi xeex wàllum troisième mandat te loolu bokk na si li nga xamante ni moo yee euh, fitna bi actuellement yéen ngeen di gérer wàllum élection lan moo leen teree bokk si F24. xam nga hmm. parce que ñun dañ leen ni de façon dem leen ci négociation yi dem leen ci dialogue parce que ku la woo ci dialogue boo demee ci dialogue ci dialogue bi ci taabalu dialogue bi lépp loo xam ne naqari na la lépp loo yëkkati ko nga teg ko ci table bi boobaa li ñuy wax question troisième mandat danga ko teg ci table di waxtaane ko buñ ne dialogue dialogue c'est ouvert hein donc je crois que euh, il faut tey ñoom ñëpp ñu ñu dem ñu dem wuy ci l'occasion se présente bu ñu ko refee nañ dem wuy ci ci waxtaan wi waxtaan waaw. imaam dégg lépp lu leen naqari lépp lu leen metti nañ ko teg ci table di waxtaane ko Imaam euh, dégg naa la ngay ñaawlu euh, ñi nga xamante ni ay fonctionnaire lañ woon ci bi tey ji ñu gis leen ñu ngi ci côté opposition bi di xeex état wu Sénégal di vilipender état wu Sénégal lan moo waral nga ne yow démarche boobu d'accord aussi. waaw démarche boobu moom du ma ci mos a nangu parce que du ma ci mos d'accord parce que aussi ay hauts fonctionnaires de l'État ñoo xamante ne tey lu état di dox ni muy doxee ni muy fonctionner xam nañu ko benn secret état ñooñu dama jàpp ne tey dañu war a am benn posture républicaine nekk ay patriote xam ne réew mi dañu dafa dafa danu war a delloo njukkeel état du Sénégal ndax état de Sénégal moo la forme ci ENA ENA di école administration boo xam ne de marque de référence en Afrique et même à travers le monde donc ku mel noonu je crois que tey euh, war nga am benn posture boo xam ne républicaine mooy nga taxaw à l'écart des jeux politiques nekk un fédérateur un médiateur waaye waruloo dugg ci eh, champ politique bi rawatina ngay jël ay position radicale euh, yoo xam ni wax dëgg yàlla euh, du lu rafetlu benn yoon. Hmm. léegi sa wax jooju imaam ñan nga ko jagleel ñan ñoo tax ngay wax. xam nga wax moom. doo hmm. junj ku nekk junj am na am na xel ay woo gis nga fi ay woo fonctionnaires yu mag. yu hmm. occupé ay postes de responsabilité. waaw ci côté ci côté justice wala fan. ay magistrats yu mag. tey xanaa Aliou Ndao ngay wax ancien procureur Aliou ndaw donc je crois que daal en fait. Euh, mhm. ci euh, posture yooyu daal du lu may rafet la ku nekk nag c'est libre de faire la politique ku nekk foo bëgg bokk mën nga fa bokk. Mhm. mais am na ay postures yoo xam ne surtout quand même euh, di lancer di jeter discrédit sur des gestions de la République yoo xam ne yow da nga ko da doon servir de façon très loyale. da nga ko mën a défendre donc tey boo dellu see tey di jeter discrédit ci institution yu mel yooyu wax dëgg yàlla daf ñuy daf ñuy jaaxal daal. Imam Makhtar Ndiaye ci dossier Adji Sarr Sonko euh, depuis pratiquement 2001 ba léegi ñi ci faatu bari na euh, Amnesty International nee na sax nombre yi on est à vingt trois morts si euh, affaire aji Adji Sarr Sonko kese responsabilité wu état ci ñi nga xamante ni ñi ngi leen di faat ci manifestation yi. waaw manifestation moom fu mu amee rawatina ay nit ñàkk fa seen bakkan loolu dañ koy naqarlu di ko ñaawlu di profité tam ñi nga xam ne si ñàkk seen bakkan jàll seen ay mbokk di leen ñaanal yàlla yàlla jéggal leen taxee leen aljanna waaye comme Sénégal état de droit la yu mel nii bu amee tamit état li mu war def dina ko def te mooy ubbi enquête te gis nga euh, ubbi enquête nu enquêté pour mën a situer les responsabilités loolu moo ci rôle état euh, donc euh, état de droit la nanu bàyyi lépp li nga xam ne mooy justice gis nga fan yi état bi l'armée ci boppam la police nationale est en train d'enquêter bu ko defee yooyu yëpp ça s'inscrit dans le cadre d'un état de droit fu mu amee des morts d'hommes des pertes en vies humaines euh, le rôle de l'État c'est d'ouvrir des enquêtes et de pouvoir situer les responsabilités hmm. noo gisee euh, leaderu Pastef bi posture bi mu jël euh, temps yi parce que moom nee na dootul wuy ji justice te moom en tout cas justiciable la naka nga gisee posture bi nga xam ne am na ko surtout dem foofu ca Ziguinchor toog fa voilà. sur la boo xam ne man dama koy ñaawlu rafetlu ma ko benn yoon parce que moom il prétend diriger ce pays un jour. Mhm. te képp koo xam ne yaakaar nga diriger ce pays un jour tamit il faut tam nga joxe le bon exemple. Euh, tey bu la justice woowee quel qu'en soit ce statut quel qu'en soit tey sa sa sa posture imam nga guide religieux nga leader politique nga demal nga wuy ji ëllëgee tey ëllëgee bu fa yóbbu ëllëg bu toogee bu yàlla defoon tey mu toog ci nguur gi tey tey mu convoqué nit tribunal kooku ni ko du ma dem yow ban la convoqué démb dem ma woon donc il faut mu am benn poste républicaine mooy sa justice bu la woowee demal nga wuy ci te am nga ay possibilité demal bu fekkee verdict bi la jox euh, dafa favorable ci yow alhamdulilah bu fekkee c'était favorable tamit y a des cours mën nga def appel donc je crois que mu dem wuy ji loolu moo gën te dina éviter tey vraiment violence bi dina éviter tey tey main de sang bi nga xam n tey mi ngi koy gis fii ci réew mi. mais problème bi imam moom mooy justice boobu ngay tudd euh, sénégalais yi dañu ko wóolootul parce que jàpp nañu dañ koy utiliser euh, pour éliminer des adversaires politiques. waaw man je crois que gëmuma sax man muy wax instrumentalisation de la justice parce que tey yow mi nga convoqué justice tey y a des de de de de se défendre am nga sa pôle d'avocat yu la taxawal demal nu la yow am nga say preuve mais demal. demal tey Sénégal ken dara umpul kenn am nga say preuve demal taxaw am nga say avocat yooyu la yel demal taxaw donc loolu man je crois que mooy posture républicaine te moo mën a indi dal moo mën a indi jàmm tey jii ku fekkee ku ñu fi woo ngeen duma wuy donc loolu ay problème rek lay indi te Sénégal tey wax dëgg yàlla soxlaatul ay jafe-jafe tey dafa nekk situation boo xam ne tey jàmm ak dal ak stabilité la ñu bëgg tey dernière question Imam euh, fiñ ñu toll nii mbaa lépp jàmm foofu ca commission euh, sur le croissant euh, lunaire gannaaw jafe-jafe yi nga xam ni amoon na ci kan moo war a jiite commission bi actuellement problème boobu réglé nañ ko ci ku war a jiite commission bi waaw wala déet. waaw ba tey xëy na réglé guñ ko de façon définitive mais am na ay des na tuuti tuuti daal yoo xam ne ñoo ngi ci am nañ def nañ ci ay jéego yu sore nag. Hmm. te am nañ ci yaakaar ni wax dëgg yàlla fa muy mujj mooy dina sotti incha allah. Euh, amoon na ay jafe-jafe nag ci début bi wax dëgg yàlla noo ngi ciy waxtaan man en tant que secrétaire permanent maa ngi ciy def ay jéego yu am solo ci waxtaan ci diisoo ak ñoom euh, sottanteeg ñoom xalaat euh, je crois que fii balaa ki yàlla mën a def daal sutura nu mën a euh, jógee ci benn point bi nga xam ne moo ci def hmm. te mooy coordonnateur général bi général bi euh, mais ba léegi imam euh, solution amagul si si korité yu bari yeeg ñoom seen parce que umandoo nañ mais gis nga ni am na ñaari korité cette fois si ba léegi solution du yomb réglé du yomb réglé ndax ku nekk si ligne si ligne de si ligne conduite ah mais commission bi looloo ko fi taxa parce commission bi commission bi liggéey bi muy liggéey mi ngi koy liggéey ci base bu leer Mm-hmm. mooy li nu yonent bi jàngal rek bu vingt neuvième jour jotee ci weer bi nu séentu buñ ko gisee nu wari buñ ko gisulee nu complété ci base mm-hmm. boobu la ñuy liggéey donc tey comme adduna bi dafa bëri diversité te ci wàllu weer tey pour nga mën ci am un consensus au niveau mondial c'est difficile bu Sénégal rek tey réew moo dem tey am na ce même problème donc mais li ci am solo rek. kon kay commission bi amul njëriñ imam seen commission bi kon amul njëriñ. commission commission bi nag euh, am na njëriñ lool parce que tey boo xoolee. ci mhm. la état di sukkandiku ci la chef religieux du Sénégal di sukkandiku këru diine yëpp noo ngi ci. donc am nañu représentativité euh, am nañu une forte représentativité këru diine yëpp ci la ñu bokk. donc vraiment te boo xoolee alhamdulilah nit ñaa ngi ñuy déglu quand même nit te liggéey bu transparent la ñuy def ci biir liggéey la boo xam ne ay ay ay borom xam-xam noo koy mëne ci saytu bi collaborer tamit ak ñi nga xam ne tey mooy waa ASPA ñu jàppale ci liggéey bi euh, ñoom ñëpp wax dëgg yàlla euh, am nañ ci yaakaar de commission la boo xam ni euh, bu am avenir la daal incha allah. voilà Imam Makhtar Ndiaye. nekkul mhm. nag nekkul nag noo mhm. ngi négocier ak ñi nga xam ne beneen parti bi la parce que ñu ñëpp benn la ñu. Mhm. mais am na beneen commission parallèle de am na beneen commission parallèle waaw am na am na ñooñu tamit noo ngi waxtaan ak ñoom ndax suñu ay bokk noo fa ne suñu noo fa nekk noo bi waxtaan ak concertation moo dañuy wax naan euh, de la la la concertation vaut mieux que la confrontation. d'accord Imam Makhtar maa ngi lay remercier bu baax a baax ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu samay laaj. beaucoup Ndeye Comba Moreau maa ngi leen nuyu bu baax di ñaanal tamit groupe euh, groupe kii bi réew mi yëpp maa leen di ñaanal yàlla defal leen tawfiir defal leen ndam barkeel seen liggéey yéen ñëpp allah di rafetlu tam seen liggéey macha allah. amiin imam ñu lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi may fàttali ne imam nga ca mosquée bu Liberté 6 chargé de euh, de communication association des imams et oulémas du Sénégal euh, bokk ci société civile bi bokk ci commission nationale remercier bu baax a baax Imam Makhtar Ndiaye. merci beaucoup Ndeye Comba Moreau. merci beaucoup Ndeye Comba Moreau. merci beaucoup.